li am man dama ko jàppee ni c'est une coalition politicienne euh, boo xamante ni dañ doon def ay daje secret ay daje yoo xamante ni dañ doon jéem a seet naka la ñuy texee seen loxo ci alal réew mi ak jafe-jafe yi nga xamante ni réew mi am na ko ndox dafa manqué ci réew mi njàng mi ak njàngale mi dafa toskare xale yi amatuñu xëy yéen ngi dégg léegi immigration ñàkkul dañ si ñëw chômage bi tar lool ñun bi ñu fi jógee on était à 10 virgule 2 pour cent sur le taux de chômage l'ANSD am na benn note bu mu génne bu yàggul nee na le dernier trimestre 2019 on était à 16 virgule 9 pour cent pour le taux de chômage waaye OIT nee na nous sommes à un taux de 48 pour cent de taux de chômage c'est-à-dire dañu jël pour cent bi nga xam te mu représenter les emplois précaires ñu boole ko avec mu nekk de taux de chômage. loolu itam mais ministre du travail alors donc je pense que vraiment. ministre weddi na alors donc li am non ministre bi weddi ko mën weddi loolu. parce que les emplois précaires quand même représentent trente deux pour pas un emploi à plein temps. alors donc loolu véritablement c' un chômage déguisé ko il faut que ñu nangu ko. je pense que vraiment li am nii lu garaaw a garaaw a garaaw la. Hmm? te tenter une tentative de troisième candidature de Macky Sall. ah bon le peuple ne l'acceptera pas. on va y revenir alors ça devient intéressant ce que vous dites donc Assane Ba alors dañuy bàyyi kàddu gi kii nga di Pape Malick. Euh, ñu ngi lay nuyu Pape Malick. di rafetlu sa teewaay ci plateau bi ñu bàyyi la kàddu gi. jërëjëf Cheikh maa ngi lay fay bu baax di nuyu téléspectatrice ak téléspectateur 2STV euh, di nuyu Babacar Alsane euh, Assane ak Alsane bi nga xam ne vraiment ñoom laa bokkal plateau bi lecture bi nga xam ne moom laay def ci situation bi man je pense que. c'est une situation normale président de la république ñëpp xam nañ ne c'est un homme de dialogue dafa gëm euh, expression olof boobu ñuy wax naan réew kenn du ko paccoo dañ koy pencoo waaw pencoo nag mooy képp koo xam ne peut-être am na ay idée wala ay xalaat yoo xam ne en tout cas euh, waroon na ñu jéem a fexe teg réew mi nii euh, waxtaan si ma jox la ci benn exemple Idriss Seck ak président Macky lu leen boole c'est pas des questions fondamentales ay questions de forme boole question de sur le plan économique su le plan social nan la ñu war a doxalee Sénégal yàlla atte ñu dem élection président Macky Sall gagné ñoom ñaar ñuy wax ba fu mu mujjee mooy Idrissa ñëw occupé benn institution boo xam ne dafa am signification ci Sénégal mooy conseil économique social nga xam ne dafay émettre ay avis yoo xam ne gouvernement bi daf ko war a mun a jël internaliser ko mun ko doxal. président dafa mujj a convaincre Idrissa Seck quoi ne ko kii waroo ko tas pas forcément non mais am na solo yem ci position wu ni parce que hmm. euh, un boo xam ne peut-être day day flexible ci kenn amu fi opinion boo xam ne yàlla rek moo ko fi am opinion boo xam ne c'est opinion euh, fixe mais képp ku dul yàlla peut nga am idée wu flexible. tey mën nga xalaat ne lii moo gën suba nga ne bon pourtant peut-être man maa ko xalaatoon mais ma Demba wala ma Samba ni mu ko xalaatee woon peut-être moo gën mais ma yeggali sama raisonnement. Mm-hmm. Idrissa jàpp na ne peut-être je pense que jusqu'à présent peut-être du na lu bari loo xam ne xalaat na ko président ni mu koy doxalee nii waroon na gën a mën a yemb comme li nga joxe exemple sànq ci taux de chômage bi peut-être am na ci ay xalaat tey jox nañ ko occasion xalaat yooyu muy wax du yem rek ci toog ci télévision di ko wax du yem rek ci toog ci ay salon di ko wax. du yem rek ci dem ba ay tool yu nekk à naaweel wala fenn def rajo journaliste kii ko mu wax lu ko neexte loo xam ne ëllëg kenn lu ko mën a jël en charge parce que c'est les paroles d'un opposant tey jox nañ ko opportunité de manière officielle mu nekk ay wala ay avis yoo xam ne defal na ko gouvernement bi gouvernement bi mën ko jël internaliser ko loolu nekk lu am solo pare mu def ko ci contexte boo xam ne quand même ak a wax contexte la boo xam ne comme tant que ko waxee kenn c'est un contexte particulier où les tensions sont vives ou les difficultés à s'écouter ou bien à se parler impact yi muy am ci population bi dafa métti ma jox la ci exemple tey ñu ngi xëy dégg Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire leen dajale ñoom ñaar tey gis nga euh, actualité bi moo ko wax Béji ak Ouattara Béji ak Ouattara tey daanaka jiboo nañu te pourtant ñoom li leen féewale c'est fondamental su fekkoon ne réew diine la day mel ni bible wala alxuraan moom moo leen tàggali may maanaam constitution constitution bi moo ne kii deux mandats la war a def que leen ne man troisième mandat lay def donc différence boobu moo a fondamental te dëkk boobu moo gën a nekk ci plus ou moins entre guillemets si je permettre de de de de de passer cette expression braise mais pourtant d' nañu jiboo nañu. en tout cas ba pare nga ñëw nag ñu fa dee perte nañu waaw ah. waaw mais mais néanmoins. parce que ñoom perte nañu ah, parce que ils étaient pour une cause mais ils sont morts comme ça pour rien.